bëri woon na ay initiative par ci par la mais xam nga jamono yi àddina doxe na doxiwaay boo xam ni lépp looy tënk rek tënk ko ci kayit nga xam ni koy wane ne ko lii laa xalaat fii laa bëgg a jëm nii laa ko bëgg a jaare alors euh, ñuy rafetlu nag euh, li nga xam ni tey jii boole nañ ci région yi di am yaakaar nag bu ñu defee euh, draft bi fii ba pare document bi dinañ ko dugal ci Sénégal yëpp ñëpp taataan ko jàngataa ko indi ci seeni i input balaa ñu koy valider mu mun a nekk nag un document boo xam ne document national la su ko defee rek bu boobaa dinañ xam exactement fan lañ bëgg a jëm ak fan lañ bëgg a yóbbu théâtre mu leer ci bopp ñëpp ñun ñëpp ñu bokk nag xàccendoo dóorandoo parce que fi mu nekk nii dañoo nekk ci li ñuy tuddee acte 3 de la décentralisation ci acte 3 bi ñu ne nañu territorialiser les politiques publiques donc ku ci nekk rek la ngay def da nga ko war a fexe loolu nga respecté ko ci et ci loolu nag dama ci vraiment féliciter

lëkkaloo ak ñom waxtaan ci secteur bi en général waxtaan bi buñ ci génné dañu bëgg euh, amal benn document bo xamantane dinañu dimbali euh, ñu mëna relancer waat li ñenn ñi bañ dégg relancer waat sous euh, sous secteur théâtre parce que ñëpp xam nañ que depuis quelques années secteur bi dafa soxé donc loolu la ñu moo ñu tay waxtaan ci problème yi waxtaan ci force yi tamit parce que amna ay problème mais am nañu ay force waxtaan ci sukkandiku ci force yi pour gën a développer faiblesse yi tamit ñu proposer ay solution euh, pour jëmale kanam suñu sous-secteur euh, ku nekk fenn bañ a avancer nit yi den la fay bàyyi euh, fi fi ñu nekkoon tamit am na lu ci baax lu am solo donc du benn bu ñuy jël teg ko ci kanamu moroomam euh, L'état tax tey ñu bëri dajaloo mooy ñu nekk ci théâtre traditionnel bi ñu nekk ci théâtre moderne bi comme ni ñu ko waxee ak populaire bi yëpp c'est que dañu bëgg ñoom ñëpp bu ñu toogandoowee waxtaan ñu am benn modèle boo xamante ne dineen mën a continuer seen liggéey ku nekk ci ci fànn bi nga nekk mais utiliser vraiment euh, technique euh, technique modernité bi parce que tamit euh, bu jamono di dox da ngay dox ànd ak moom donc looloo tax euh, bu ngeen xoolee ñi fi nekk ñëpp li ngeen gis ne composante yu nekk ñu ngi ci atelier bi pour mën a proposer benn modèle boo xamantane dina mën a arranger ñëpp. Euh, wàllu tàggat bi moom euh, am na tuuti jafe-jafe mais yamul rek ci secteur du théâtre donc bu ngeen xoolee culture ci boppam euh, secteur yëpp dañu am problème ci wàllu tàggat donc li gën a tax mooy dañu manqué ay bërëb yoo xamante ne dañ fay mën a former. Euh, aussi bien xale yi que Matni parce que formation tamit du rek euh, kuy soog commencer même ñi nek ay professionnels dañuy soxla de temps en temps tam ñu tagat len ci yi xew ci jamono. donc lool nek na problème mais euh, ñuy contané moy acteurs culturels yi euh, dañu conscient de lool et ku nek ci ñom mu ngi am ay initiative bu formation même bu nekul formation yu gudd mais dina permettre que ñi nek ci biir secteur bi ñu mën len mettre à niveau léegi nag li ci moy euh, tamit état war na gën seug ci problème formation parce que xamné né formation moy base formations euh, formation moy base création de qualité moy base diffusion moy base lépp donc euh, xamna né ci walu formation dinañ ci waxtan lu yaatoo yaatu ci tu rencontre rencontrer